dama ñëwoon nemmeeku xool bi ñu nommé directeur Promojet ci weer wale max ñëw gis équipe bi waxtaan ak ñoom xool naka la ñu toggee waaye indi leen itam li nga xam ne président de la république loolu la xaar ci ñoom ndaxte projet bi dafa nekk projet bu mag bu war a laal téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti commune ci Sénégal yaakaar nañ sax dañ koy yokk ci yeneen région ba nga xam ni li UCG doon def ci liggéeyu mbalit bi am beneen projet bu nga xam ne état bee ko def mu war a accompagner loolu mais mu war ko jox beneen jëmm mm-hmm. beneen jëmm moo di euh, liggéeyu liggéeyu mbalit bi mu mën a njëriñ ki ciy liggéey ah mooy tubaab lu muy wax ñu économie circulaire ñu mën ko ciy créer ba nga xam ni déchets yi mu bañ a nekk rek mbalit bu ñuy daw ci ci loolu lu koy jëmmal fii ci Sénégal li nga xam moo gën a jëmmal mbalit ci fii Sénégal mooy mbëbës 1968 la la la la mbëbës commencé mm-hmm. nit ñi ay xalaat rek lañ ci am ay intention 92 gouvernement bi jëloon ne dañ ko tëj tëjuñu ko te yàlla def président Macky Sall jël à bras le corps li projet bi ay partenaires techniques et financiers mooy ay banque mondiale ak agence française de développement ak yeneen structure taxaw ne dañu ci jàppale ba tey mu juddu te mbëbës nekk ci au point central mais mbëbës rek taxu koo jóg parce que am na yeneen 138 communes yi nga xam ne dafa leen di accompagner accompagner ci ay jumtukaay accompagner leen aussi ci former ñi nga xam ne ñoo yore. mbirum mbalit bi donc lu mu nekk liggéey bu rëy liggéey boobu président lu mu wóolu wóolu Ibrahima Diagne Ibrahima Diagne moom rek kenn attanu ko li ko attan mooy yéen ñëpp ñu dox ngeen joxante loxo xam ni Promojet seen doom la bu nekkee seen doom nag seen doom yéen ko yar bu bu génnee seen éducation lay wane mais bu fekkee ni ñaaw na yéen a njëkk a ñaaw te balaa muy àgg ci ministre bi ma feddi leen tamit su ma su ma su ma kóolute bi ma am ci yéen parce que kóolute ba président am ci man moom laa am ci yéen ñun ñëpp ñu bokk équipe ñu liggéey ba nga xam ne sénégalais yi ak président de la nga xam ne ñoo ñu wóolu ñu am ci satisfaction may sant nag Macha bu nga xam ni moo conduire processus bi ba àgg fii te moom mu des ci ministère bi des ci liggéey bi moom Abouba nga xam ne yore cadre bi ñu joxante loxo ak Ibrahima Diagne lépp lu ñu doxalandoo ñu doxalandoo ko parce que ma man dama gëm liggéeyu équipe man gëwuma benn nit rek bu nee man mën naa lépp gëwuma loolu li ma gëm mooy ñu ànd ñu nekk benn xol yi nekk benn bu xol yi nekkee benn ku ci am loolu la metti nga wax ko fi nga ko war a waxee ku ci am lu nga war a jooy nga jooy ko fi nga ko war a jooyee mais bu wax jotee ak jooy jot bu bu jàllee ñu nekk ci liggéey nga xam ne ku ci nekk lu muy am ci liggéeyam bi li ci barkeel mooy ñaq bu mu ci def. Mm-hmm. nit liggéey na am ay milliards mu bañ a barke ndax simplement joxul ak liggéey bi liggéey bu rafetee ñu ñëpp ñoo ciy jël image mais conf tey damay jox exemple rek UCG tey Sénégal gépp yoo wax UCG mais li tax loolu lu tax loolu. mooy équipe bu ñu bu ñu montré ku ci nekk am ci wàllam ñu bañ a xeeb kenn réew mi lu ko yàq lu bari mooy grade yi ku nekk day ne man maay lii man maay lii man maay lii te foo nekk ci kaw ki nekk suuf moo tax donc bàyyi xel ki nekk ci suuf ku bàyyi ki nekk ci suuf bàyyi xel ni liggéey bi ci moom lay war a war a bu buñ bàyyante xel ku ci nekk ñu xool lu jaadu ñu teg ko ko lu jaaduwul ñu bañ ko teg kenn mais loolu tamit lu koy indi mooy waxtaan. mbir mi il faut ñuy waxtaan du ñëw rek administration classique fii du gendarmerie directeur fii du gendarmerie c'est-à-dire que fii il faut que nit ñi waxtaan il faut que ci nekk bokk ci liggéey bi xam ni am na ci wàll mais bu sanctionné jotee tamit ñu sanctionné ku def ku def ku defu liggéeyam nga sanctionné mais ku def lu baax tamit nañ ko sanctionné positivement parce que loolu mooy liggéey ku nekk sentir boppam ci li ñuy def bu leeree rek bu diggante yi leeree rek liggéey bi sotti wóor na ma ni parce que xam nga yow du milieu nga xam ni xamoo ko da nga jaaroon ci ci mbir mi des ci xam ko kon li liñ la jox nii dañuy am présomption ni ko war nga koo mat mais nit nag mën na am xam-xam mën na am jaar-jaar mais kilifteef yàlla ak nit nit ki moo koy def ci bopp mooy doxalin la doxalin boobu nag duñ ko jàng ci benn école mooy doxalin wax ak nit jàmmante ak nit xool li nga mën a am ci nit ki le maximum nga mën koo tiiree ci moom te te du sonn yow doo sonn loolu rek moo ci jar a wax moo wax la ni yéen ñëpp commençant par yow mi nga xam ne président moo la wóolu bu la président wóoloo ñun dañuy am obligation wóolu la ñu ko wóoluwante ñu joxante liggéey bi ba nga xam ni mission bi ñu président dénk te yàlla aussi dénk ko ñu def ko ni mu gën a rafete yéen itam ma réaffirmer leen ma disponibilité li ngeen yaakaar ne war naa ko mën def jaarale ko ci moom danaa ko jot te su ko jotee li ma ci mën danaa ko def li ma ci mënul nag dama leen wax mënuma ko man nag man du ma nit ku nga xam ne laxaati ay ne waaw ma xaar leen ba suba li mën a tey dinaa leen ko wax li mënul nekk man li mënul nekk bu boobaa nag lu ci lu ci ku nekk xam ne mu góofee mu bootee ay mbiram loolu daal laa amoon kàddu tey kontaan naa trop ci accueil bi lool vraiment li ma li ma depuis une semaine laa ko une semaine laa wax ni dinaa fi ñëw ma gis organisation bi rafet waaw ensuite gis naa ni kër gi rafet na yanji na waaye nañ koy signaler aussi parce que bu ñëwee kër gi anonyme léegi génn leen ngénte na leen kër gi nag nañ ci def tur bi def bi ku romb xam ne fii mooy promotion hmm. ngeen assumer aussi communiquer communiquer du moom rek mooy communiquer yéen seen bopp ku ci nekk am na réseau communication ngeen rafetal seen liggéey parce que liggéey bi su ngeen ko rafetalul dara du ci rafet yéen a ko war a njëkk a communiquer yéen les premiers communications les c'est le personnel si le personnel n'est pas content si le personnel manifeste son mais rien ne marchera mais si le personnel montre une solidarité d'action une solidarité dans la démarche dana am lu sotti kon communication boobu ci yéen la war a commencé ma terminer si nag féliciter journalistes yi ñu fi ñëwee en masse vraiment euh, ab réew nag ku àndul ak journaliste wax ak journaliste yi xamoo foo jëm dëgg yàlla seen disponibilité ñu ngi leen di féliciter ci présence bi remercier leen jàpp ñaan leen aussi ngeen jàppale ñu ci liggéey bi ñuy dox liggéey bi dafay jafe dafay métti suñu journaliste yi jàppalewul dara du ci dox parce que ni ñu koy présenté rek noo koy nit di jàppee wan leen aussi ñu tam ñu tam disponible amul lenn lu ñuy làq lu ngeen xam ne yaakaar ngeen war ngeen ñoo wax ngeen ñu waxtaan ñu ko mais tëb rek wax ko ci mbedd bi aussi fekk ni lu ñu nekk fii di tontuwante man dafa amoon benn xarit journaliste bi ma doon wax ni mu ne la meilleure manière de s'enfoncer c'est de démentir <laughs> mu ne même bu waxee lu dul dëgg boo ko démentiré mu ne rey nga sa bopp donc bañ a ñu bañ a àgg ci ay démenti lu nekk ñu ubbeeku suñu service ubbeeku ku ci nekk lu mu war a am laaj ñu laaj ko te ngeen accompagner bébé bi di dudd nii ba nga xam ne c'est en 38 communes yaakaar nañ ni dina mën a yokk ci réew mi ba yàlla may ñu ci ndam yàlla may ñu ci jàmm maa ngi leen di sant leen gërëm. waaw wax nga dëgg wax nga dëgg ah pro projet non seulement xam nga Mbeubeuss dañuy gën a wax. ndaxte bës moo gën a siiw mais dana laal téeméer ak. fanweer ak juróom-ñetti dëkk ci téeméer ak juróom-ñetti dëkk yooyu war tabax defar ay téeméer ak juróom fukki infrastructure ñetti junni war a jox ñetti junni xale ñu am ci liggéey te liggéey bu taxaw waxuma nag les emplois indirects kon projet bu toll noonu projet bu mag la projet bu nga xam ne war nañ koo jox gëddëm te ñu yaakaar ni président li am mooy xel mi ak politique bi mu définir ko mais yéen la jox jumtukaay yi pour que ngeen doxal ko ñu yaakaar ni ci mois de janvier 2022 février danañ commencé gis les premiers résultats maa ngi leen di sant leen gërëm oui Oui. Oui. ah bon c'est c'est yalta yaltaale boobaale bon en fait bésub setal lay tudd loolu tamit dama koy préciser bésub setal lay président joxe ne instruction ñu recommencer ko te dañ ko recommencer le 4 décembre prochain hein le 5 décembre 4 décembre le 4 ah c'est vous il faut vous accorder sur la date là le premier samedi du mois de décembre ah le ce sera le 4 décembre danañ ko relancer mais balaa ñu ko relancer danañu def une réunion nationale réunion bi dana dajale acteurs yëpp ministère de l'intérieur ministère des forces armées ministère de l'éducation ministère de la jeunesse ministère de sports ministère de la santé ministère de l'environnement ak forces armées service civique national ñoo ñëpp ñu ak ministère de collectivités territoriales ñoo ñëpp ñu toog waxtaanee man contenu lañ ko bëgg a jox dañ ko bëgg a def ba nga xam ni xale yi dañuy dugal ci seen bopp culture de la propreté loolu dafa am solo mooy dañu ñëw rek def ko Mumbai ñu def cinéma de dañoo bëgg ci école yi mu démarré ci école yi mu démarré ci ASC yi mu démarré ci service civique national mu démarré ci kër yi ba ñëpp mën ko approprier ñëpp ñu ci war a nekk bu ñu waxtaanee contenu ba pare ñu lancé ko nag le premier samedi mois de décembre te ñu bëgg mu nekk appropriation des collectivité appropriation des population du Sénégal te jàpp nañ ni ni ñu ko nar a defaatee gaa ni ñu ko commencé woon baax na loolu Covid bi moo ko arrêté woon léegi Covid bi yàlla baax na mu ngi wàññeeku bu baax a baax ñu yaakaar ne dana jeex mois de décembre ñu reprendre ko boobu tamit comme question bi vous avez bien fait de la poser boobu itam UCG am ci solo lool direction générale du cadre bi am ci solo lool waaye Promojet tamit war dugal loxoom ñetti ñi lënkaloo ba. li nga xam ni moom mooy première action commune bu ñu war a defandoo mu rafetandoo ba nga xam ne aussi ëllëg ñu mun ko fi bàyyi parce que lu ñu commencé action bu nga xam ni après dañ ko fi dañ koy def événementiel après ñu mu dañaat action boobu dañoo bëgg mu nekk lu nga xam ni population ñoo ci approprié wu mën ko doxal ëllëg. Hmm. maa ngi lay gërëm di la sant. Hmm. alors le chef de l'État nous a donné l'instruction de reprendre les Bessup Setal hmm. déjà nous avons commencé parce que ces baux subsétales ont été arrêtés par la Covid. La Covid qui a été une catastrophe mondiale, qui a freiné beaucoup d'activités. Mais nous allons la reprendre en, en d'abord commençant par une réunion, une réunion qui va redéfinir le contenu. Cette réunion nationale sera tenue avec nos collègues de l'intérieur, avec nos collègues des collectivités territoriales, avec nos collègues de la jeunesse, avec notre collègue de, de, de l'éducation nationale, des forces armées, des sports et de l'environnement pour redéfinir le concept, pour voir le contenu et avec aussi l'ensemble des autorités administratives, tous les gouverneurs du Sénégal, pour donner un nouveau contenu beaucoup plus ancré sur l'incubation de la culture de la propreté chez les jeunes. Nous voulons que ce concept, que les enfants, que les jeunes, que les associations se l'approprient et ensemble, nous donnerons un autre contenu beaucoup plus fonctionnel, mais aussi beaucoup durable et que ça ne soit pas seulement une action folklorique inscrite dans un petit jour, mais que ça soit une action permanente. Mais cela passe d'abord par une inculcation de, de, de la culture de la propreté. Et nous pensons que le premier samedi du mois de décembre, nous pourrons effectivement démarrer à Dakar et sur l'ensemble du territoire national. Là, nous avions déjà, nous l'avions déjà évoqué au lancement. C'est 200, plus de 200 milliards de francs CFA. Donc c'est un grand projet. bon Mais nous l'avions déjà évoqué à la journée de lancement. C'est bien. Merci, la séance ay nuyu ñëpp képp ku fi teew euh, di rafetlu li fi xew tey mooy ni que suñu kilifa euh, moo jub ñëw seet si ñun muy lu rëy si ñun donc euh, monsieur le ministre sama kàddu yëpp su ma ko woon tënk si leen laa koy tënkee muy jërëjëf jërëjëf si li ñuy defal mooy kóoluñu ko lu rëy si ñun jërëjëf si li nga def tey mooy ñëw seet si ñun Euh, yaay suñu kilifa mën nga toog woo ñu ñu wuy si la mais tey da nga déplacé ñëw seesi pour nemmeeku li toogee donc ça veut dire tey yow euh, ni ñu toogee li ñuy def yitteel na la moo tax nga bàyyi sa lépp ñëw fii seesi ñu donc ministre monsieur le ministre ñoo ngi lay jaajëfal euh, jaajëf bi am na fu mu commencé mais amul fu mu yem di la jaajëfal aussi tamit si taxawaay bi ñu defal wóolu ñu ba ñu ko wan jàppale ñu saa su nekk di ñu xelal di ñu teg si yoon donc ñun li ñu war mooy topp sa ginnaaw Euh, ànd ak loyauté liggéey pour que li la son excellence monsieur le président de la République dénk la ñu mën ko nga mën ko matal donc si loolu maa ngi engagé sama bopp mais di engage équipe bi ma àndal yëpp ni que dañ la xëyal dañ la gontal muy naaj muy taw pour que vraiment li kilifa muy président bëgg ñu matal ko muy que Promoged bi nga xam ni que moo war a nekk li nga xam ne mooy taxawal Sénégal zéro déchet ñu jëmmal ko euh, si loolu tàmbali nañu si liggéey bi Euh, di la aussi tamit euh, ñaan aussi nga yeggal aussi suñu remerciement aussi si kilifa bi muy suñ muy président de la République son excellence Macky Sall bi nga xam ni que daf ñu tànn si ay millions sénégalais euh, wooluñu dénkuñu projet bi. donc soo yeggee nga waxal ñu ko quand même kontaan si loolu xam nañ li mu ñu defal te que li ñu war itam dañ ko def ba mat sëkk donc liggéey bi tàmbali na ak équipe bi ñoo ngi liggéey. pour teg li na xam moo war pour que ñu mën a yegg fi ñu jëm muy inscrire lépp si ay résultats si euh, loolu euh, lépp ñu ngi koy liggéey tàmm nañ vraiment liggéey bi suñu mënee euh, wax loolu. donc mais aussi tamit di sant di gërëm aussi tamit suñu collègue yi nga xam ni moom lañ fekk si ministère bi ñu dalal ñu gungee ñu tam ànd nañu di liggéey mais aussi tamit ñu particulariser suñu mag muy Mass Thiam bi na xam ni moo yore UCG. Euh, gis suñu que suñu ay njaboot rek nekk fa aussi mu téye leen téele bu rafet aussi tamit ñu gis liggéey bu am solo bu muy liggéey tamit ñu ko si remercier di ko si féliciter mais aussi tamit di ko wax tamit que euh, si li ndaw xam-xam bu ndaw wala doole bu ndaw bi ñu suñu borom dénk tamit en tout cas teg nañ ko si loxoom pour jàppale ko si ba a xam ni que li ñu ko dénk nag ma parce que réussir am mooy suñu réussite jàmmam mooy suñu jàmm donc euh, on a intérêt à travailler ensemble et que si loolu effectivement moom nga ñu digal te moom lañu fas yéene euh, liggéey donc en cas monsieur le ministre daal euh, pour tënk xamal ni que ñi fi nekk ñëpp waa PROMOGED daal engagé wu nañ pour que li ñu soxal mooy matal li ñu sas bi si njëkk mooy décharge de Mbeubeuss en tout cas bëgg nañ matal ko ba na xam ne que fii weer dinañ mën a lancer appel d'offre bi pour que année bi di ñëw ñu mën a tàmbali liggéey bi parce que dafa nekk loo xam ni góom la fii si Ndakaaru ak li ko wër depuis 1960 ba léegi mbalit bi mu ngi fay ñëw am fa ay impact yu doy waar euh, depuis 1992 le état du Sénégal engagé woon pour teg ko ba léegi mu jafe mais gis nañ ni que ak euh, taxawaay bi si président de la am bi nga xam ni projet bi même si mbëbës la ko lancé waneen na que aujourd'hui euh, le Sénégal jël na ko en main e muy président mu yow gis nañ aussi ni ngi si taxawee te ñun li ñu wax muy liggéey ko dañ ko def ba nga xam ni que mbëbës ñu mën ko tëj mais aussi infrastructure yi ñu soxal dans les régions ñu mën ko def donc pour tënk daal monsieur le daal ñoo ngi lay sant di la gërëm di la dala jàmm fii si Pont Magette bi après di wax aussi tamit suñu disponibilité euh, taxaw si liggéey bu baax baax